eh ay waaye ndaw saa nag lii de mooy lii mooy amul omeletu Gàmbi baa ngi nag yow nit ñi di xëy di woor di gën di jege yàlla di gën di sonn yow ngay xëy di gën di teg sa multi au di ndekki pour lan eh, yow xanaa xamoo ne fii këru jullit la ah ñun fii dañuy xëy di woor ba ngoon jot amul ndekki ah mais yow deugar nga bopp ah. yow est ce que wér nga yow. yow doo réglé. eh ma ne la laaloon nga ub sa gémmiñ laaloon. keur gi fi maa koy contrôlé de. fi foron du fi dugou de te yow foron nga. ki ko dal affaire bi. ni dal la nu nan ki ne laam ban way mo la gëna neex ci sa way mu ne ba may way dogo ah fit na weesuwul lii nag moom. eh xam nga lu ma la bëgg xamal nga rek nga rek la sa extraterrestre bi na génn ci man. wax dëgg yàlla waaw. ki du géwal sequl ak bokkul ak dara jaaral nii nga naan kineelaam ak bëti dogo. yow ya, xam nga lu ma lay yokk di jaay ci sa i wax nga ub sa gemmin waaw ki nit la. ndax yow moo to wax yow fii nan la taaj suba ba ngoon jot di waxtaan ak yow nga ne amoo soxna nekkete yoo bañ ñu jiñ la feebar nga dem luye ji sa jabar andi ko fii bu xëyatee wóorul génnee kër gi waaw. yow jàllal ni man. ngay lan ni ñaay. jàllal nii dama lay door contre de. dindil occasion la rek de. bul yëngal sama xol bi génnal kër gi génnal mbaar mi. nit ñi di wut jabar bu légal ngay wut bu foral. waaye doxal na leen waaye yow jeexuma la waay. kii. Ah. wuy ma dimbale ma rek dimbale ma rek xam nga lu ma lay xamal man maa la expliquer li ci kër gi te jotuma expliquer kii. bul séq ak moom benn wax ndax kii wérul ba pare problème mu retour la am. xam nga ma la bëgg xamal gi suñ ma xamul maa xamante nañ bu baax. Ah, ok si kii génn ci man kii wérul est que yaa may dégg. dégg bu baax mën na ne. mën na ne kay. bien sûr sax ma dama la fi indi pour loo bëgg mu ne mu nekk. kon baax man xam nga mu maîtriser gi nga mu maîtriser. ak man feebal bi ma feebal ci sa kanam loolu ça me plaît xanaa xamoon ne àdduna boo amul ku la contrôle da ngay rëppi rëppi di dem mm, yow yaa may contrôler man fi mu toll nii kumba daa xam nga lu ma nga xam ko mm. dama bëgg nga taalal say basan maay sa sécurité devant di sa sécurité derrière en haut en bas kenn nag du la fi laal sama ndax solaat ci teg xam nga lu ma bëgg nga xam ko chargeur universel amoon na fi mais nag xam nga yow yaay sama ban chargeur yaay sama chargeur EasyTress bi. da waaw chargeur EasyTress <laughs> da ngay sa chargeur boole kaak sa téléphone def sa fa sa poos daal di wéy te kaay ma wax la de waxtaan naa ak Baro. Hmm. gëm bi ci boppam laa jël fas yéene la ko may. ay waay yóbbante aji bi bu ñëwoon rek ànd ak yaa amoon luur te ñu ne Petit Mbay nee na la ko jàpp 200 lay dugal mo rek koor gi neex nag. laay waa yow eh, eh kii du Ndeye Ndiaye. excellent waa ci doon ne. ah Ndeye Matia Ndiaye jàngoog. ah eh, loo def weer <laughs> yee <laughs> ceen ngeen sonn bi ah. moo dégg de. non doo dem tonton Diop. Ah. mais wax ba xam nga ni temps yi yaa téye bi. waaw yow loolu ñu ngi koy wax. yow de àddina yow la ñuy waxtaanee fi mu toll nii. waaye non ndax xam nga léeg-léeg ma romb nit ñu ne Ndiaye jaata Ndiaye si ne ko ca benn ma Pate Gueye Ndiaye man leen puusal bokk ma foofa <laughs> ñu ne Ngom Yacine ma jaxu ngoon xaram la benn ne caab man leen ah non non non non duma cum galank ñu ne joojooro ba jub sàppa Yacine ndaw ma tabara ma tar dooki borom dënd xanjar yaa ngi nii. man leen non maa leen joogi téye la xamee fa ma bokk. Ah, maa nga bokk ca jam jallo jaaji fal moo sama ndede fal ndene dembaak ndene maram jàllo ndene yaa si nuut <laughs> ma rey man temps yi moom amul noo xewal fi mu nii yaa rew yaa raw di ngeeru xew eh, dama télé Sénégal nii leen tonton Ameth Diop Fall mbëkk laa soxla ah. ñu ne la mi ngi nii nii fàng nii sama bara comme kuy tox maal góor. <laughs> xam nga instant bi foo ne. Hmm. yaa ngi ci Ndoye Bane xalaas yow la ñuy waxtaanee. <laughs> Ndoye moo ci kan ki ki ku ñaaw ke <laughs> Mati ba moo ma woo téléphone dama déglul xalaat. eh fi ne cuuraay joo nëbal onze jours dama ko ron. ah léeg-léeg 49 di rànke tonton man leen non je ne parle instant bi yaa ngi yeewu leen laaw Pape Cheikh Diallo di la kerkeraanu. Pape Cheikh Diallo man lay wër. yow lay wër. sama wet danseur Diop kot man ko papa waa Laba waa Laba lay bañ. man daal xam nga lu ma lay digal. ñëwal doom ndey Aliou Diop. nga dagal suñu nijaay bu ñu bëgg la torop. Eh, maa leen raw. ma bëgg nga waaxu nànk ba jasab yow yaa moom machine bi tonto Diop boo mënul dem jasab nga ñëw ma boole laa fóode ndax àdduna kat yàggul te feebar bu na dañ koy faj ñëwal ma boole laa moom nga faju moo gën.